la revue de presse de Souleymane Ndiaye yéenekaay yi ak Souleymane Ndiaye. daleen leen ak jàmm tey dañ koy door ak yéenekaay bi. atul bi moom di laaj mille milliards yi nga xam ne ni def nañ ko ci fonds force Covid 19 yi nee nañ seen mille milliards yi nga xamante ne nii def nañ ko ci fonds euh, Covid 19 bi xaalis bi fan la dugg fan la xaalis bi dugg mille milliards yoo xam ne nii def nañ ko ci Covid 19 bi amul benn enquête sérieuse ñu laaj nag balaa nguur gi bees gi di ñëw na xaalis boobu leer nañ def une enquête sérieuse pour leeral askanu Sénégal cent mille milliards yooyu fan la dugg yéenekaay bi di l'indépendance moom di wax ba tey ci deux cent dix-sept candidats yi nga xamante ne nii wàññi nañ leen yoo xamante ne ñu nga doon dem ca Espagne kooku yéenekaay bi di l'indépendance moo ko xam xamle yéenekaay bi di nga xamante ne mooy critique moom mu ngay wax mu ngay wane nataalu Guy Marius Sagna di wax ne moom mooy le potentiel plan B du candidat Ousmane Sonko wala moom mooy pat potentiel plan B wu Pastef kooku yéenekaay bi di critique moo ko wax. yéenekaay bi di l'observateur moom mu ngay wane Malick Gakou mi nga xamante ne nii mu nga nekk di def karabaanam waaye lii di ay takk der ñoom ñoo ko tere yéenekaay bi di source a moom di wax euh, di wane nataalu ali Ngouille Ndiaye di wax ne démissionné na waaye ba léegi pas encore accepté démission bi ba léegi accepté guñ ko. yéenekaay bi di républicain moom ba tey di wane nataalu maire Malicounda bi ne Maguette seen vote Amadou Ba yéenekaay bi di l'éveil moom ba tey di ñëwaat ci nataal Guy mari Sagna ak Ousmane Sonko di wax Guy mari Sagna plan B d'Ousmane Sonko ba pare def point d'interrogation. ndax moom la wala du ko nekk waaye sénégalais yu bëri jox nañ Guy Marius Sagna comme plan B wu Ousmane Sonko. yéene kaay bi di Dakar Presse moom ba léegi mu ngay wone nataalu sëñ Assane Mbacke sëñ Assane Mbacke mu ngi uh, waajal benn mobilisation boo xamante ne nee da koy def pour la libération d'Ousmane Sonko waaye tamit libération wu tous les détenus politiques. yéene kaay bi di Vox Vox Populi moom di wone nataalu Ousmane Sonko wax ne ay candidatam dëggal ay avocatam déposé nañ ñetti requête dañu bëgg ko kii di Sonko ñu jugé ko balaa date bi nga xamante ne nii mooy date bi nga xam ne la ñuy nit ñi di def euh, lañuy ñuy déposé seen candidature yéen kaay bi di la tey mooy moom di wane Aminata Touré Aminata Touré nee na ku woteel Amadou Ba képp koo xam ne woteel nga Amadou Ba nee na da ngaa valider troisième mandat wu Macky Sall xam ne daal. wotel nga Amadou Ba lii Mimi Touré moo ko wax ci yéenekaay bi di la témoin képp ko wotel Amadou Ba da ngaa valider troisième candidature u Macky Sall yéenekaay bi di Sud Quotidien moom di wax ne la face à elle-même di wane nataal président Macky Sall Mame Boye Diao mi d'accordul Aly Ngouille Ndiaye mi d'accordul ak ñeneen ñi nga xamante ne nii d'accord nañ pour jàppale Amadou Ba yéenekaay bi di deux minutes moom di wane manifestation bi nga xam ne ku jégga def nañ ko fële ca New York jàmmaarloog waa kër Macky Sall vilipande ko lii yéenekaay bi nga xamante ne deux minutes moo ko moo ko wax di wax ne Pastef se venge Macky Sall engrange yéenekaay bi di yor yor ba tey mu ngi ñëw ci tukki euh, président Macky Sall ba ca New York mu ne la fièvre de la sonkorisation gagne le pays et de l'oncle Sam maanaam euh, sonkorisation bi am Sénégal fii ah noonu lañ tertoo président Macky Sall de daal di fa wilipande wax ko fa lépp loo xamante ne nag xari na leen yéen kaay bi di l'évidence moom ba tey mu ngay wax ne la diaspora vilipande Macky Sall et sa délégation fële ca New York moom fële ca New York a ah, ñi nga xam ne ñoo fa rek ku jég yi kii di njabootu Ousmane Sonko di Pastef ah démb la ñu teertoo président Macky Sall neexu ko de xam na amul lu ñu ko yëkkul yéen kaay bi di alerte moom di wax ne Aïssata Tall Sall renforce des liens séculaires loolu yéen kaay bi di alerte moo ko xamle. mu nekkoon mu nekkoon seen revue de presse ak Souleymane Ndiaye ñu ngi leen di jaajëfal bu suba ak jàmm jàmm. la revue de presse de Souleymane Ndiaye yéen kaay yi ak Souleymane Ndiaye.